maa di Alphonse Biram Ndour nekk ci biir diocèse Ndakaaru ki saytu lu jëm ci wàllu déggoo diggante diine yi mbokk yi ma bokkal diine ci Krista bi l'abbé yi ak frères yi suñuy mbokk yu ñu bokkal réew bi te bokk ci diiney lislaam suñuy mbokk ñu bokkal réew mi ci diine maam yë mbokk yi góor ak jigéen mag ndaw waaye defal yàlla ci teewaayu suñuy njiit monseigneur yi ànd ci ak kuréel bi nga xamante ni moo ngànk liggéeyu ndaw jàngu bi ñoo ngay ñaawlu bu baax la xew ci jamono yi la ndege dale ko alxames ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février gi ñu nekk suñu gaal mi ñu tuddee Sénégal ngelaw gi ngelaw gu metti yëngal la ko te ngelaw googee tax na ba ñun ci suñu bopp jaaxle nañu lool ci mbaax mi nga xamante ne moom lañu ñu xamee suñu réew mi li mu di mbaax moo xamante ne dund nañ ko ay ati at a ngi nii te di koy wéyal saa su nekk itamit ndaxte suñu réew Sénégal dafa am benn ngëm-ngëm gu xaatim daal di koy tudd ci bàkk bi nga xamante ne ñun ñëpp a ko xamandoo muy benn xeet di benn jëm-jëm ak benn ngëm-ngëm loolu raw na doon bàkk wande dafa di suñu ruuxi bopp doon itamit doole gi nga xamante ni moom lañu ñu xàmmee suñu réew te di ñuy doon loo ñu doon ay benn dale ko ci kàddu yi nga xamante ni moom la ci tudd ne réewum senegaal laalewul ak benn diine réewum Sénégal ñépp la fi nekkal te itamit dina wéyandi liggéeyam ngir ñëpp doon benn ci kanamu yoon gi ngir ñu bokk ci réew mi yépp xaajaat léew ñu ci fa mu jóge wala itamit xeet wala itamit góor ak jigéen wala itamit diine ndaxte dafa ormal te cëral ngëm-ngëm yépp kàddu yu ñaaw te ñàkk teggine yi nga xamante ni nag góor gi lee turu imam Sall yëkkati na ko te teg ko ci kaw mbootaayu njabootu kercen te bokk ci réew gi ci émission bi ñuy tuddee diine ak jamono ba ñu amal ci alxames ñaar fukki fan ak ñeent ci benn xarala bu tudd wal fajri mu ngi ñuy gën a dëgëral ne lii lee nga xamante ne moo di woon suñu mbaax ñu ngi commencé ñu ngi tàmbale di njott ne mu ngi ñuy réer ndànk-ndànk te itamit déggoo bi nga xamante ni moom lañu ñu mës a xamee Sénégal dafa mel ni ñu ngi koy jogati rawatina nag ngëm-ngëm gi ñu am te bokk ko ñun ñëpp waaye ilaa bu du woon loolu naka la ñu mën a jàppee li nga xamante ni moom la ekkati teg ko ci kaw ndodu kerteen yi ci li nga xamante ni moo di émission Diine Jamono googee maa ngi fàttali ni muy la ñu mën a gis ci vidéo wala bokk lañu mën a gis ci déggin te ñu xam ko ndege mu ngi wéy ci biir réseau sociaux yi di oo waaye diine lislaam yi ñu ñakk jaxasoo ak yeneen diine yi rawatina chrétien katolik yi nga xamante ni daf leen jàppee ni ki ñu ñàkk fayda ay yéefar ay kufir maanaam ay franc ak yeneen i xeetu kàddu yu ñaaw te safaanu kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko rek seetlu nañu ne du guleet keroog déedéet kàddu yooyu yëkkati na ko ci yeneeni jamono niki ci meneen xarala bu tudd 2 ci fukki fan ak juróom-ñaar muy tudde ci encore lii lée nga xamante ni moo di kertien yi catholique yi kaddu yooyu mënuñ ko jàppee ni ke juumte te baalum bi mu baalu itamit jàppewuñu ko li nga xamante ni yegg na ci xolam te gis nañu itamit ne kàddu yooyee jëmalewul suñu réew kanam kàddu gi Ngor si Sall ekkati Sénégal yi yépp yi nga xamante ni jàmm ji ak coofel gi ñor leneen ci réew gi daan nañu kàddu yi ni mel ndax ndaxte góor ak jigéen doon menn Sénégal te yëg coofel gi xew ci diggante diine yi menn sénégalais mënul nangu kàddu yi ni mel rawatina ku nekk a ngi wax ci booram li nga xamante ni moo ci gën a ñaaw Ngor si Sall def na njombe bu doy waar ba nga xamante ne nag ñu ngi ci oo ñëpp ñi ŋànk nguur gi ci Sénégal di koy jiite ci suñu njiiti réew monsieur Macky Sall mi saytu lu jëm ci ngëm-ngëmu Sénégal constitution te itamit di doxal lépp li ci war ngir suñu réew mi le du naxsaay wala du suux ci biir ndox ga ndax ngelaw yu am doole yi ni mel yow suñu njiitu réew waaw naam gis nañu takkute gi nga takku ci li nga xamante ni moo di mbaaxu suñu réew te loolu njortol nañu ni di nga def sa kentulaay kattan ngir li ni mel du fi mës a amati te tamit ñu jël ci motuwaay ci wóor ba mot sëkk ngir daan ñi nga xamante ni ñu ngi def njombe yi ni mel ci kanamu loolee nag ñu ngiy sakku ci sa kilifteef ñu mun a yemandi li nga xamante ni moo di jëfin yi ni mel te ñu ngiy sàkku itamit ñi léegi nga xamante ni ñoo di defkat yi ñaawteef yi ni mel ñu mun leen ci daan daan yi nga xamante ne moo ci war ci waxtu yi ni mel dañoo oo sax procureur mu daldi di saytul boppam mbirum bi léegi ngir li ni mel du fi mosati am ndaxte du guléet yàggul dara amoon na keneen ku fi ñëwoon tudd juróom yi nga xamante ni téeméer boo jël ñoo ko doon fii ci Sénégal wax ci tamit wax ju ñaaw tey jile mbirum sàll gii le añuy gën a ci suñu doxalin ak suñu jëfin ngir ñu gën a mànkoo te mën a jëbu suñu réew mu jëm kanam ñu ngi rafetlu li nga xamante ni CNRA maanaam kuréel bi nga xamante ni moo saytu lu jëm ci wàllu xarala yi jël niki ndogal démb altine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février daan ko li nga xamante ni moo di télévision Walfadjri gannaaw ba nga xamante ne ci suñu teewaayu njiitu diine ak jaarale ko ci conseil national du laïcat ekati ab bataaxalu ñaxtu daldi leen ko yóndee ngir xamal leen jombe gile ngóor ki sàll góor def nañ jombe gu doy waar ñu koy fàttaleti looloo waral nag njabootu kerceen yi rawatina katoliku Sénégal ak bépp góor ak jigéen joo xamante ni waaye defal yàlla la ñu ngi ñaan te di sakku ngóor googee mu daldi balu Sénégal ci boppam te tuub ay kàddum ngir wone ne li nga xamante ne def na ko nangu na ko te rawatina du ci delloo ci mukk jaarale ko nag ci xarala bi nga xamante ni foofee la amee ak noo nee la fa demee mbokku diine waay kercen yi suñuy mbokku taalibe kerceen yi ci waxtu gi ni mel mu metti ñu te doon lu mun a yàq diggante yi kuréel gi ngànk waayu ndaw jàngu bi ci ndawal suñuy njiiti monseigneur yi ñu ngi leen di oo ngeen teey te dal ni ñu ko borom bi yeesu jëmmantale ndaxte kat xam nañu ne mbirum xasteg saagante du jikkoy kerceen looloo waral ñu ngi leen di ñaan ngeen teey rawatina ci réseaux sociaux yi ak yeneen jumtukaay yi nga xamante ni ñu ngi tey wax te di ci wax lu ñaaw te saafaanu te loole a nga ñuy gën a soriwaat le itamit ak suñuy mbaaxu kerceen yi nga xamante ni la muy jiital mooy coofeel ci sa morom bu dee sax bokku leen diine waaye naam dëgg la duñu ci rocceeku mukk di yeggali li ñu war mbokk yi di taalibe njabootu kerceen yi ci kanamu li ni mel te métti ñu kuréel gi ngànk ndawal layka bi ci Sénégal ak suñuy njiit monseigneur yi ñu ngi ñuy oo ñu daldi amal lii di lëkkaloo ak déggoo ak yeneen diine yi ni ko suñu ngëm di koy santaane ci Kirista bi suñu borom moom mi nga xamante ni dafa ñëw ngir musal àdduna si sëpp ñun chrétien catholique ak kercen bépp yu nekk ci Sénégal mënuñu moy lii lee suñu wareef ci ibiteku suñuy moroom te di sopp suñu moroom niki suñu nawle di itamit suñu melokaan ndegam waruñoo fàttali li nga xamante ni moo di liggéeyu Caritas ak yeneen ni suñuy jumtukaayu jëfal surgawu doomu aadama niki kër sër yi niki l'école yi niki yeneen jumtukaay yi di jàppale nit ki mu daldi di tekki xaajuñu xaajalewuñu yemale ñépp muy kerceen muy sëriñ muy ku bokk ci meneen diine niki diine wu maam ya kuréel gi ngànk ndawal catholique yi ñu ngi oote ci wàllu googe suñu mbokk yi nekk ci média yi ak bépp nit goo xamante ni muy yëngu ci wàllu siiwal ak ci wàllu nettali ñu gën a teewal ci seeni wax ak ci seeni wane ak ci seeni jëf ormal gi nga xamante ni war nañu ci bépp nit ak ci bépp diine donte bokkuñoo diine donte bokkuñoo xeet donte ay góor ak ay jigéen lañu mbootaay bi ngànk ndawal catholique yi wu senegaal ñu ngiy gërëm bépp waay defal yàlla ñi nga xamante ni lii leen metti na leen lool ba ku nekk jóg di wax ñu bari bokk ci diiney lislaam won nañu seen coofeel won ñuy tamit seen lëkkaloo ak ñun bëgg ñëw xamal ne réew mi la benn réew la te kenn du ci loolee di firndeel suñu coofeel ku nekk ci moroomam ak suñu wormal na leen borom bi suñu yàlla Yeesu Krista daal di leen gën a dëgëral te siwal leen ci sellaay gi ngir gën a mën a dëgëral nag suñu soobu tegile ñu ngi oo ngir ñu gën a taxawal te gën a mën a dundal li nga xamante ni mooy mbootaay gi ñuy lëkkaloo ñun waaye diine chrétienne waaye diine lislaam waaye diine yi maam ya ngir ñu gën a mën a xamante gën a mën a jokkoo gën a mën a def ba li ni mel dootu fi amati ci jamono ji nga xamante ni ñu ngi dugg ci kooru chrétien gi di tàmbali ji ëllëg alarbay doomu taaliya jàngu bi ngay ootee ci wàllub tuub kon ñu ngi ñaan suñu borom bi Krista ñu tuub ñun ci suñu bopp njëkk kerceen te di koy ñaan tuubu doomu aadama yépp yi tamit ngir ñu gën a jublu ci borom bi na mu ko bëggee ndegem ba muy sàkk xaajaatlewul nit ak moromam xaajaatlewul waaye diine yu bokkul ni ko suñu njiit yi di koy fàttali nag ci tàmbaliwu koor gu nekk ñu ngi bind benn bataaxal bu ñu siwal ci weerum novembre deux mille vingt di ci naan am na ay nekkin ak ay melokaan ay doxalin yoo xamante ni day gaañ coofel ak lëkkaloo tey tamit di koy tuutal ba mën ko tas sax niki li ñuy oowee ka sib moromam ba daal yaakaar ne moo ko gën ndaxte benn baay dong lañu am moo nekk ci asamaan te moo ñu defloo ñu doon ay mbokk ci borom bi ñu ngi ci tudd tamit li nga xamante ni moom mooy xaajoo ak xaajale xiiroo ak xëccoo ndaxte loolee jëfi iblis la jëfi seytaan la moom mi nga xamante ni mooy xaaj nit ñi ñu ngi ciy tudd yi tamit li nga xamante ni mooy bëgg sa bopp yow dong te yaakaar na yow dong yaa fi nekk ndaxte yi tamit wut li gën ci yow dong weesuwul naan man dong la man la bokk na ci li di ki ñaan ndaxte ki ñaan mënul banneexu ci li banneexu bànneexu moroomam te bëggul bànneexu moroomam lu dul bànneexu boppam bokk na ci li di sib nit itamit mu di lii léeg nga xamante ni nit ki mën na ko ñàkk xam sax di yëkkati ay ndaan di koy teg ci moromam te di koy yéene lu bon bokk na ci ñàkk yëg nit mi nga xamante ni mooy tax ba ñu yëg ci suñu bopp ñaawteef ak itamit naqari suñu morom bokk na ci tamit li ñuy oowee mbooloo mi nga xamante ni man dong la mbooloo moomu moom mooy tax ba nit ki daal di jublu ci moom moom dong te loolu mën a jur saafaan mën a jur itamit xëccoo xiiroo ak xaajoo mbokk yi François d'Assise mu sell mi mi nga xamante ni moom moo di roy ci li ñuy oowee xelum assise miy waraloon ba pape ba François daal di xaatim benn bataaxal te tuddee ko Laudato si maanaam ñu ngi lay gërëm borom bi dafa am benn ñaan bu am solo bu mu ekkati te di koy fàttali àdduna si sëpp ñaan googee moo di lii leel borom bi defal ma ma doon jumtukaayu jàmm jë fa sib nekk ma daal di fa def coofel fa tooñ nekk ma daal di fa def mbaaleem fa ñàkk déggoo ma daal di fa dégg ma daal di fa def déggoo fa njuumte nekk ma daal di fa def dëgg gi fa jiixi jaaxa nekk ma daal di fa def ngëm gi fa naqar nekk ma daal di fa def yaakaar fa lëndëm nekk ma daal di fa def leer fa lu nekk ma daal di fa def ba neex ga ay borom bi leel may ma may ñàkk ut ñu may dalal ka may dalal sama morom ñu may dégg ka may dégg sama morom ñu may sopp ka may sopp sama morom ndaxte su may maye lay am te su may fatt sama bopp laay am lépp te su may baale lañ may baal ndaxte ba may dee itamit ci lay dëkki ci dund gu dul jeex ga mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen di ñaanalati ñu yendoo jàmm te di ñaanal mbootaayu kerceen ñi ñu dugg ci jamonoy koor gi ak jàmm ju mat sëkk jërë ngeen jëf